ndax jamono ji ne mooy ko nan ñi euh, leader politique yaa ngi nekk fii di saagaanteeg wax ju ñaaw ji ne ñu di koy tegal seen der jël wax ju tegginu teg ko ci ndoddul ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko lan mooy ci sa xalaat yow. man de Ousmane Sonko naw naa ko man Iran il était jeune aussi ko am fayda la xam nga man dundinu sénégalais daf ma yu ci bëri intéressé wu ma te mooy. dama amoon bàyyi bu ñuy wax bàyyi moon ñang góoru géwél gu dëkkoon tiwaawal ku xamaaduna dafa ñëw ci daara ji ne ana Iran ñu ne ko ubbee yeewoogul de mu ne nii bunt bi ma ne ko kal mu ne ma sa bàyyi moon ñang ubbi sol grand mbubu Lagos booba daara ji métti na benn yére la am bi ma ubbee yem ci moom mu ni ma kaay ma ñëw mu ni ma làngu noonu dafay yaatu ku la mere dem ca tëjal tëddaat loolu laa la doon doy ma ne ko dégguma ko mu ne ma làngu noonu dafa yaatu ku la mere dem ca muy coalition ñi coalisé soppantewuñ dañu bokk contre su daanoo fi nga koy xamee ñoom ñëpp mujj di xuloo xam nga waa waa site euh, Sénégal 7 suñ la mere woon yow suñ xuloog yow ku xuloog yow rek dem ci groupe ku ci xuloog yow ci emploi rek dem bokk ci groupe bi xaritoowunu danoo bokk noonu looluy alison dañoo bokk noonu ku ñu bañ bokk ñuy xeex bokkuñ bëgg a daaneel Ousmane Sonko xale la gis nga am réew ku sacrifier sa ndawi réew sa mujjug réew yàqu ndaw moo mën a tëb moo mën a naaw moo mën a waqandiku yonent bi moo ne shababaka qabla haramika li nga soxla ci ndaw nga ko mën a def bala ngaa màgget màgget mënoo ci def dara Ousmane Sonko xale la euh, ki ci dees dëkk géej waaye xaw ma xaritu ay Aïdara bi Ablaye Gàkku xale la Mali Gàkku Khalifa sàll xale la Bougane xale la mais duñ leen former jàppale leen pour en cas ëllëg xoolal li dal fi mu ne suñ tarixa yi mag ñëpp dem nañu demal ci tarixa yi li fi des bëreetul mais buñ waajaluloon ñii fi ne su mag ñi demee ko fi toog léegi réew mi bu ñu waajalul xale yi am pas-pas ku ci juum ñu orienté la mais ilimaan su juumee dañ ko naan subhanallah mooy toogoo taayawoo baa sujootoo dañ koy sabbal nit bu nekkee ci réew bëgg lu baax di ko dox su juumee Iran wax na lu mu warul wax laajal numéro téléphone Iran nga jàmmanteeg man ne ma soxla woon naa la bëgg naa ñu gisee buñ gisee nga ne ma déglu naa sa benn waxtaan nga wax ci lii ak lii ak lii du yaa ko wax ma ma bul waxee ti nii dalay indi indil noon ti du la fajal li nga bëgg teg ko ci suuf nii la mag ñi daan defante. mais du ñu xëy jël benn xale saaga la xas la dëkkal la foo dëkkul dem ba lay tuddee yenn tur yi pour lan pour lan loolu baaxul man man ko gën a nawee ci benn affaire keroog daje bugaan gii bi ci Mermoz defe naa la bu quartier ba dëkk wala xaar yàlla xaar yàlla du xaar yàlla dafa am ko jox professeur xaw ma nan bugaan kaamil ne ko waatal bala dara ndax li nga wax danga ko def waat ko kaamil baa ngi maa ngi lay xaar ma yóotu suma téléphone di woo bugaan pour jot ko mënuma ko jot dama ko bëggoon ne bu ci waat parce que ëllëg yàllaa ko moom wa ma yaalamu xëy bu illallah yéen fi ngeen toog ba ngeen départ ñëw xamoon ngeen heure bi ngeen di tourné ah, ah voilà kon kenn du engagé lu loo xamul yéen jàppoon ngeen heure bi war naa fekk ngeen dugal ko bu yàgg am déet moo tax konoon dama ko naan bul waat ëllëg yàllaa ko moom moom moom tey bul bul dogg ci dara far Ousmane sonk dimbale ma ca daf ne bugaan bu ko neexee waat nit mën na waat ti lem ne gëmu ko looy ko noo koy xamee naw ko ma ne jërëjëf Ousmane parce que it àdduna xalaat la fekk laxuwul yamin ñëw na alxuraan indi na ko nit yàlla indi na itaxasoo aymaanahum junnatan bari na Iran muy wax naan billaahi wallaahi tallaay daa bëgg ngeen gëmee ko ci waat gi mu jaar ci seen may lekk seen alal mais du dëgg alxuraan prévoir na loolu ba wax ko kon waat bu ci amul solo li nga doon wane ko bu dee nit ko honnête nga yaa xam soo honnêtul yaa xam man kalaasu ay Ousmane Sonko euh, euh, Gàkku euh, Bougane ay Youssou Ndour man xale yi réew mi am ñu ñu bëri njëriñ lool su ma sañoon ñu jël leen denc leen jàppale leen loolu laa gëm kenn joxuma ci dërëm ci ñoom télé bi may liggéey fayee ma salaire li may wax lu ma gëm